c'est moi jamais. 95 le 15 15 95 wax mu je me présente jamais. may paa yooyu Je noonu lañ ba jubóo del Je le rek. man la Alassane Ouattara pharmacien bu nekk Kaolack. enfin. tay ne may pas nu le neex li présenté pas. mais. déglu Je jàmm la. dialogue Je suis muy gudd. mun daal je suis peur daal. acca moo laa Je ne élément bi dugg. sama xel xalaatu ko bu mu ko naree def yàlla explosé. 13500. voilà ndaxte ki woo wax bi waxul lu ndaw. problème yaa ngay démarré na problème yaa ngay démarré na. ok Pape Cheikh yow la wax. astaghfirullah. réer ji ci boppam day dàkk. waa ñi ci plateau bi moom lu ñuy ree. moom ak yaaxal. wala li mu wax dafa nekk lu dëral. jamais jamais jamais. comme que Pape Cheikh on nee nga dañoo niroo golo mais demal nga réclamer ko yàlla mi ñu sàkk. yàlla dafa choix. mënoon nañoo tegal comme restaurant rek qu'est-ce que vous voulez devenir. kon yow looy choisir. kon man waxuma la blanc rek mais dinaa doon Michael Jackson. mu ni. ñëw bokk ak yéen Afrique bii. seen booyu ñu golo. def nii def xool ma rek. alaaji Maalik génneel golo nga teg ma teg koo nga xool. mais est-ce sant yàlla bi ma déggulee tubaab sax. Ndiogay génnoo ci wax ji de ñun dañoo nuroog ay singe. nga ne. mu ne ñun ak golo kiif kiif. haay haay. te si moment bi ko doon waxee suñu mbokk yi ñu ngi souffrir lu métti ci racisme. dëgg rek def yàlla. te si moment bi mu ko doon waxee encore moment soutenir la. li wax mooy dëgg. mais moom dafa confirmer li tubaab bi duñu xasee. li da naan njóobanoo sant mun a wele. te li ma ci am ñu taxaw naan ma day kaf. c'est honte. mais dafa war a am nu ñuy café ak ca jamono ja ñuy café. li nga wax mooy dëgg. mais tiim ay nit di leen ay golo. forage ba teel a gens bàyyiwul kenn kenn kenn bàyyiwul sax ñu ko mat ay kilifa. respect réciproque. tey nag li nekk sama xol rek laay wax. ku ma ci mere kooku c'est pas mon problème. ndaxte sénégalais xamul ku tooñ ku fayu la xam. dëgg rek def yàlla. ñoom daal dañuy wax rek dañuy wax lu leen neex foog ne après dara du leen ci fekk. nit ki looy wax na nga ko xam. moo tax dañ ci gis ku wax ba làmb taatam naan bii du sama bos. réew ci boppam day dàkk. mais nag li may wax rek di càggal ku si dul xalaat ñetti fan ko dul xalaat du la neex defal. réew ji ci boppam day dàkk. waaw mais Sanekh jamono jii moom da ngaa nu mu demee noonu. jamono yii laa gën a réew. voilà moo tax nag man mu bëgg nga teel ma référé vidéo bi ndaxte Pape Cheikh Diallo mii kat daf ñu traité golo. man xooli golo taxumaa jóg. xanaa kon da ngaa déggul li mu wax. ñun tamit noyyi am dañoo niroog golo trop. xam ne nii noppi def nii xool ma rek. da nga xam ni kii bu ne woon ñul met rëcc la. sa baay ni ñul met tëb. dinañ jàpp sa baay ba ko. <laughs> waaw kay loolu mooy solution bi. xoolal. réew ci bopam day dak mais parfois nga gis ko commentaire ne balu na kay nañ ko bal d'accord mais bala nga bal nit day fekk nga genn li nek sa xol. li nga wax moy deug ak ñi wax nan Pape Cheikh day kaf mais ñoom it bu ñu man damay kaf dong vidéo bi du am trace té nak lu racisme bi tar tar tar. lu mu tar tar tar xola ñu mësa xadi chaque jour dañuy fier ci suñu po. ay noir la pire man de li la wax mbay yi ni loolu ngeen wax. ñun li nañu mëna wax do Ndoye Ndiaye. acca bu ko defé suñu mam mëna def ñaan.